qalbi lahu fi itaab al-jismi takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru qalbi lahu fi itaab al-jismi takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki am média groupe Nourou Darayni bokki taalibe yi bokki jullit yi bu nu sante si borom subhanahu wa ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dellu santa sewnal xadim di ñaan suñu borom wa taala fayal nu ko noo ngi del siwaat ak yéen ci sunu émission jataayu ji jigéen ñi zaadu nisaa il muslimaati li nasihatil muminina wal muminaati doon jataay boo xam ne jataayu fàttalente la waaye jataayu laan ci biir la ni ko alquran karim waxe ak xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa boo xam ne noo ci dénkante ak fàttalente ak ci biir sunu bokki jigéen ñi waaye ak sunu bokki góor ñi ak koo xam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala namm na ci sag jariñu jataay bi passé noo ngi woon ci fi Serigne Touba di dénk soxna Penda Diop waaye di ko dénk mbooleem jullit ñi eh, di leen wax ne wala eh, wala nga jigéen ñi eh, di wax ne na ngeen xam ne bu leen sàkku bul sàkku topp suñu borom ci lu dul topp sa borom kër bi nga xam ne attaqi zil ula borom kër bi ragal suñu borom subhanahu wa taala la euh, waaye doon ko wax itam dëgg-dëgg jihaad ji nga xam ne moom la jigéen war a jihaad nekkul yëkkati ngànnaay jàkkaarloo ak noon yi ah, la waaye nekkut jihaad sa bakkan akay ah, jihaad la waaye mi ngi ci topp borom këram bi nga xam ne attaqi zil ula ndax bu toppee boroom këram boobu mi ngi mel ni mi ngi yor ngànnaay jàkkaarloo ak noon yi waaye mi ngi mel ni mi ngi yor ngànnaay jàkkaarloo ak bakkanam ci di ko xañ li mu bëgg te te doon jub waaye di ko xirtal ci li bëgg ak doonte dafa nekk lu jafe loolu moo taxat mu wax soxna Penda Jóob waaye wax soxna yi jullit ñi ne leen bu leen sàkkoo topp seen borom subhanahu wa taala ci lu dul ngeen topp seen borom kër bi ragal seen borom subhanahu wa taala euh, loolu nag leeral na nan ko ci bul sàkkoo topp seen boroom ci lu dul sàkkoo topp sa borom kër loolu ko waxee li seen borom ci yow te nga man ko loola taxut ñuy wax waaye jihaat ak sa bakkan jihaat ak sa sa ci ngànnaay euh, dëgg dëgg ci jihaat ci jigéen mooy jiko ko mooy mu jihaat ci boroom këram mooy fexe topp borom këram ci borom kër topp ko ci lépp nag topp ko ci zahir topp ko ci baatin waaye nag mooy borom kër bi nga xam ne boo ragal moo ragal yàlla nga xam ne du la digal ci bànneexam du la tere ci xam day sës ay ndigalam euh, ak i tereem ci ndigal suñu borom subhanahu wa taala wala nga daf ko ciy tibbe ci ndigal suñu borom subhanahu wa taala foofu la koy tibbe kooku mooy ki nga xam ne kooku la Sëriñ Tuubaa wax ne bul sàkku topp sa borom ci lu nga topp borom kër boobu borom kër boobu nag ak taqi zil la lay doon waaye kooku itam nga jihaat ci moom moo ëpp doole nga jihaat ci noon yi wala nga jihaat ak sa bakkan te boo ko yaatalee dëgg sax da xam ne jihaat ci borom kër boobu jihaat ak noon day dugg ci biir jihaat ak sa bakkan day dugg ci biir nga xam ne kon dëgg dëgg jihaat ak sa ci sa borom kër Eh, topp sa borom kër bi ragal suñu borom subhanahu wa la ci toppin bi ba na ko suñu borom bëggee kon xeeti jihaat yépp day dugg ci biir kon loolu mooy li am solo mooy nga topp borom kër boobu topp ko ci zahir topp ko ci baatin li nga man ak li nga mënut eh, mu continuer wax wax eh, soxna Penda Diop ne ko wa xaythuma zawju radi an zawjati radiya anha rabbuha bi ni'mati na nga xam ne boroom kër fu mu gërëme soxnaam suñ boroom subhanahu wa taala gërëm soxna sax loolu nag day delluwaat ca kaw rek ca boroom kër bu ragal yàlla ba ndax boroom kër bu ragal yàlla du gërëm soxnaam ci lenn lu suñ boroom lu suñ boroom gërëmul lenn lu suñ boroom xaraamal ci jigéen wala ci nit ki jigéen du ko def ba mu gërëm la ci déedéet melokaan yi nga xam ne moom la jigéen di melo alors ne jamono ji nga xam ne ci lañ toll nga xam ne jigéen ñi si lépp dañ koo xeet ba lépp la ñuy yokk euh, ji genn góor goo xam ne ko suñu borom taqi si la la du la ci gërëm li nga xam ne ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy melokaan yooyu du la ci gërëm te du la ko digal naka noonu ni nga xamee ne noonu la bari di juum di wax ne. doona wax ne jigéen lu neex boroom këram neex na ko waaye nag na fekk la neex boroom këram boobee nekk la neex suñu boroom waaye nag bu fekkee la neex borom kër ba neexul neexut suñu borom kon ñoom ñaar dañuy ànd dugg ni ànd bi ci mbugal ndax la taata li maxluuqin fi maasiyatil xaaliq lépp lu suñu borom gërëmut ci ab jaam bi bul ci topp bindéef bul ci topp ab sëriñ bul ci topp sa borom kër bul ci topp mag bul ci topp rakk bul ci topp ab xarit boo ko ci topee rek di ngeen ànd daanu ci ak kàmb kàmb boo xam ne kàmb bu buggal lay doon kon borom kër bi nga xam ne say bu gërëmee suñ borom gërëm mooy ki nga xam ne du gërëm mukkute ci lu dul suñ borom gërëm da ngay topp suñ borom subhanahu wa taala ba mu gis la xam ne digg digg yow ku ab jaam ko topp suñ borom nga ab yàlla nga ci zahir ak ci baatin guddi ak bëccëg muy tàng muy sedd muy taw ak muy naaj lépp mu gërëm la ci jaam googee kooku yow boo amee ngërëmam am nga ngërëmal suñ borom li suñ Musaa Ka waxoon yàlla laram bu mu gërëm loo ko jëfal am ca gërëm soo ko joxee benn dërëm mu ful ko ay junni yu sax kon boroom kër bi nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa ridwaanulaahi alayhi di wax ne saay bu la gërëmee suñ borom gërëm la waaye bu la xarabee suñ borom xarab la mooy ki am ak xàmmee am ak ràññee am ak ragal yàlla nga xam ne du la gërëm mukk ci lu suñ borom gërëmut lépp loo nekk lu suñ borom gërëmut ak donte dangaa nekk ki gën ki gën a baax ci moom waaye nag di dox ci lu suñu borom gërëm du la gërëm mukk fekk ne dangaa nekk ki ki gën a sàggan ci moom waaye toujours yaa ngi teg sa tànk ci li suñu borom gërëm kon kookee moom bu la gërëmee suñu gërëm la kon kookee mooy ki am ngërëm dëgg dëgg dëgg waaye daal mm, nanu xam ne borom kër lu ko neex lu ko neex euh, lu ko neex neex lu neex soxnaam neex na Euh, loolu moom waxi waxi waxi waxi ku nar a waru la bépp borom kër bu boo xam ne danga nekk ci lu neexul si borom ba mu gërëm la ca gërëm googi gërëmul seytaane la euh, moo xam danga ko wax wala danga ko jëf waaye bépp borom kër boo xam ne lam lay gërëm yi lépp lu suñu borom subhanahu wa taala gërëm la kooke mooy kitax tax Sëriñ Tuubaa di wax ne wa xaysuma sawjur radi an sawjati radianha rabbuha bi ni'mati kon kenn ku ci nekk jigéen ju ci nekk war naa fexey sàkku ngërëmal borom këram waaye nag ngërëm la dëppu tegu ci nga ci kaw ngërëmal suñu borom ndax la taata li maaluxin fi maasitil xaaliq ak wallahu wa rasuluhu am xaqu an yurduhu yàlla ak yonentam ñoo gën a ci ñu gërëm la kon lépp lu suñu borom gërëm ab yonentam gërëm ko góor gu la ci gërëm am nga gërëmal suñu borom ku ci gërëmut am nga wa taala waaye amma iza lam yarda anha anha abada fa laysa yarda lahu anha sarmada bu la bu la borom kër bu la bu borom kër gërëmut nag borom kër bi nga xam ne attaqi zil ula la bu la gërëmut suñu borom du la gërëm ndax kooku du la gërëm lenn ci loo xam ne suñu borom gërëmu ko lépp loo nekk te suñu borom gërëm gërëmu ko kooku la ci gërëm su fekkee da nekk ki gën a baax ci moom gën a gën koo mën a toppatoo gën ko def lépp te bu xëyee ba ngoon jot lu suñu borom gërëm rek ngay def wala moom ngay wax wala ci ngay ci ngay dund waaw kooku du la gërëm kon borom kër bi nga xam ne bu ragal yàlla la lépp lum lay gërëmee suñ borom moo ko gërëm. loolu moo tax mu ne bu gërëmu gërëmul suñu du la gërëmul ndax koo xam ne am na ci ak xam ak xàmmee ak ràññee ba lu su borom gërëmul du ci gërëm kenn waaye lu suñu borom gërëm mu gërëm ci kenn kooku kon bu la gërëmee day mel ni euh, suñu borom moo la gërëm waaye bula la xarabee day mel ni suñu borom subhanahu wa taala moo la xarab loolu mooy amma isa lam yarda anha abada fa laysa yarda allahu anha samada mu dellu teg ca wal taalami bi ann kulla ma sadar li xayri wacci zil jalaali fa hadar léegi soxna Penda Jóob yéen mbooleem jigéeni jullit ñi na ngeen xam ne lépp loo xam ne dafa gongi ko ci yow nga wax ko wala nga jëf ko te jëmmi suñ borom subhanahu wa te fu taxul nga jëf ko jëf ko ci ak sellal ne na ay nen la loole ay nen la luy màbb doon kon lépp def wala lépp looy wax nanga ko wax ngir jëmm suñu borom subhanahu waaye bul ko wax ngir ngistal bul ko def ngir ngistal bul ko digtal kenn ngir ngir ngistal kon lépp loo jëf rek na suñu borom subhanahu wa taala tax ta taalami bi anna kulla ma sadar li xayri wasisil jalaali fa hadar bari waa ko def lu rëy lool nit ko di ko di ko ca ñaw di ko ca naw te fekk boobu amul si dara digganteem ak boromam xam ne nit ñi dañ ko naw di waaye nag foofu rek la ca yem waaye suñu borom di ko gërëm ndax def ko ngir jëmmi suñu borom kon lépp looy def rek def ko ngir jëmmi suñu borom subhanahu wa taala boo ko defut ngir jëmmi suñu borom jëf la juy màbb juy neen la te du la jariñ dara loolu mooy wa taalami bi anna kullama sadar fa hadar waaye nag mu min azabillahi xata yatruka arbaata ashya ne na nga xam ne yow sëx na pend na nga xam ne amul kenn kuy mucc ci mbugalam suñu borom subhanahu wa lu dul def bàyyi ñeenti jikko yi muy lan alkasiba wal kibra wal buxla alkasiba ñëwoon nañ ci ci biir e, ci li ci alquran wax ak xadis yonent bi sallallahu alayhi alkibra kazalika wal buxla kazalika wa o zanni naka noonu li ci alquran wax ak li ci xadis Yonent bi sallallahu alayhi wa wax kon nanga xam ne wala na ngeen xam ne amul kenn kuy mucc ci mbugalam suñu borom subhanahu wa taala lu dul ni ñeenti jikko yi dafa génn ci moom set wecc wala sax mustalaale muy lan mooy moytandiku wax lu dul dëgg naka noonu moytandiku rëy moytandiku nay moytu moytandiku ñaaw njort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 rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin loolu moo tax ñëw na ci jeexantalu bind Sëriñ Tuubaa yooyu dem te fekkoo ca ñaan googu su fekkee am na ndax xadis yi ci ñëw yu wér ñaan googu tëjee suñu borom subhanahu wa taala wax la muy tekki mooy sell ñel na suñu borom borom bi nga xam ne mooy borom tedd nga wulif na nga xam ne noonu lañ koy me noonu lañ koy melal ngay wax ne suñu borom am na doom am na soxna ak yëpp loolu la wax ne suñu borom seetlu na wëlif loolu kon jàmm yàlla nekk ci ñi suñu borom yónni sant ñal na suñu borom subhanahu wa taala mi borom bindee fi loolu mooy subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon loolu mooy sunu jotaayu tey insha allah taala di taxalu insha allah ñaan suñu borom defal na ak dégg topp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa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 الحق من باطل أبدته فجار